gaay ñu ngi leen di ziar ñëpp di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay ñu def benn live bu gàtt rek bu gàtt gàtt gàtt gàtt du gudd euh, man nag xam naa ne sama wax ji sax mënoon naa ko ñàkk bañ a def mais comme nag léeg-léeg moom euh, donte ñaari nit la ñetti nit yoo xam ni nekk nañ ci terrain bi di la déglu léeg-léeg ñoom buñ amee benn initiative ñu tasaare ko euh, askan wi jot ci liñ naan góor jàpp ci góor ku ne may sa morom ku ne jox sa moroom loxo ñun ñëpp ñu jugandoo luñ song mën nañ koo daan dama ni bët bu rusul toj bët bu rusul toj te am na groupe whatsapp yu ma bokk yoo xam ne gars yi dañ ci doon def ay message ku ne di wax ñun waa Dakar deux mille vingt et un ñoo xeex xeex bi nangam sangam yéen waa Dakar suba jug leen dix heures barricade yee ñu barikaade Kër Përe nañ ko nañ ko dindi. man bi ma yëgee sax bi ma yëgee boobu maa ngi waaj a dugg fi may liggéeyee euh, gis ñu partagé ni Përe day def déclaration yàlla mi ñu tim xam na ni dama ne bu doon may Sonko damay dem noppalu ba suba. far ñu ni gis nga gaa yi tere nañ ko mbedd mi tere ko ni sa biir kër sax léegi boo fa toogee tëjal sa gémmiñ ñu taxaw te barke alxuraanul karim lii léppoo lépp bu Ousmane Sonko demee ba di ko sibir ñun sénégalais yii la mu yaakaar ne buñ ko nee xaa ñu jug toj lëfal ndeyi gaa lii ko dal nii lépp nag ñun ñu ko yóbbe ñun ñii bu nee Farba Ngom sa lëfal ndey nan ni ñun sunu datam ndey nan saga nday sunu bop ay tapale baxul Aliou saw fun saga ndeyam nan wëlbatiku saga sunu bop ba mu saf lolay deug Antoine fun saga ndeyam nan tourner saga sunu bop ba saf fun tuddé sen sari nday rek nan tuddu sun corti nday yi ñun kat le ndeyam fele bayi len ay tiaxan ay tiaxan baxul lu génn ngeen ñëw affaire de challenge affaire de fo ree sa waay lii moom ak loolu bërki démb ci guddi ci combat bi la ci nit deewaat ñu war a mën a taxaw am taxawaay bu nu war a mën a am mais amuñu ko di jël yëf yi di ko caaxaane di ko fowee di ko def ay tappale ñii dañoo amul pexe te chaque jour ku nekk génn man li ma gën a metti mooy ñi nekk Sénégal yéen yéen ñun ñoo leen tane sax parce que li tax ma ne ñoo leen tane ñaari baat ñett ngeen naan ñu ñëw leen foofu rek ngeen nekk di wax mais billahi sunu wax jee ëpp impact seeni wax ay responsable Pastef la xaw ma man ñooñu man dama leen a jëllale ñooñu moom ay poste la ñuy wër démb xaw ma maa nga gis Moussa Balla Fafana xaw ma day xawaare xaw ma xaw ma ana Pastef ak daan organiser di tëggi ndënd ak ndëndëg ndëndëg yu kenn xamul Moussa Balla Fafana Canada nga nekkoon bàyyi leen askanu senegal wi ngeen bëgg a takk ak njaam. jamono ji jamonoy foron la jamono ji du jamonoy taxaw di teg ay programme déedéet programme yi teg nan ko ñëpp xam nañ fi waa Pastef jëmee réew mi li fi des jug jàkkaarloog doomu xaraam yii di jaay doole toj seen lëfal nday la loolu dong la du la neen du la neen du la neen suba képp ku nekk ci biir terrain bi ndakaaru yéen waa Thiès yéen waa Mbour yéen waa Kaolack yéen ñëpp jege si leen dix heures barricade yéen barricade kër Ousmane songo na deñ na deñ bu boobaa nag ku leen ni waaw waa Ziguinchor ngeen ni ko ñu nit waa Ndakaaru mais bu dul loolu yéen ñii fi nekk bu ne waa Ziguinchor taxawaay bi am waa Dakar fépp waroon nay booy ngeen ubbi seen data nday yu rëy yi ah 2021 nangam nangam kërëng kërëng 2021 dama ni suba barricade yéen barricade kër Përo na deñ na barricade yi dañ bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan baaxul tey Sonko lii lépp ko dal ñun ñoo ko teg kenn tegu ko ko Macky Sall bu demee ba am fitu tey di jéem a humilier Sonko di ko toroxal kan la nan waxante dëgg ñun ñii la nan ko nangu lu ko dal ñun la waaw dëkk bu metti bi sénégalais yu bari ma riirandoo leen gi ci yóbbu rek mais billaahi li ñuy gis gisu leen ko waaw li ñuy gis gisu leen ko li ñuy teg bët di ko sentir di ko yëg muy dox di ñëw yéegu leen ko sax waaw waaw Sonko nag moo ñu tooñ tooñ boppam ñun ñu ci diaspora bi billaay Sonko ñu tooñ moom moo ñu tooñ de moom moo ñu tooñ tooñ boppam waaw mais ñii liñ leen bëggal xamuñu ko ñii liñ xam fukki nit ci néeg loolu lan xam Sénégal loolu lan xam fukki nit ci benn néeg boolu añ fukki ponkal wër ko te naan kër gee ka neex loolu lan xam waaw Sénégal loolu lan xam Sénégal xëy di semi takk jabar yaakaar ci euh, euh, euh, say xarit di ngénte ku ne nga ko waaw féetal sax am na ci ñoo xam ne bun ñu amoon ñaar fukki personnes yu dëgër yoo xam ne fu ku ne assuré na leen quinze mille léegi ñu takk jabar Sénégal loolu lan xam Ousmane Sonko loolu lan xam waaw loolu xam booy wax ku ne di la dafa ñaaw billaahi waaw dafa ñaaw lu nyaw la bala ma de nak ñu tek seen ñetti pono eh Grand Yoff parcel feu eh Pikine alpha Malika alpha feu seen ñetti ndey pono booba Farba Ngom nga kërëm di napaje Aline saw ne kërëm di napaje ah ay ñom bu tujuh toju len seen lëfal nday yi kenn wax gila lan mën Yang wax nga xam naa ni doomu jadi lor nan ko sungku Sonko billaahi lor nan ko lépp ñoo ñun Macky Sall mérité mu ñuy sunu serinci ci dul, leen duul ñu xam ni di leen di ñu ak maa ngi leen mérité ñun mérité wul Ousmane Sonko li ngeen mérité mooy fukki ponkal ci benn ci benn néeg waaw juróom-ñaari jànq ci benn néeg yooyu ngeen mérité yooyu ngeen mérité yooyu ngeen mérité bu subaa dinaa gën a ñëw yaatal koog laay bu yaatu mais dinaa leen wax ne moom mérité :fra wu leen ko